si Touba amal na ndaje moom Bassirou Gueye di leader si les démocrates réformateurs yeesal ñu gën koo xam si LDR yeesal te nag moom Mamadou Diagne Fada nekk ca booba parti bii nag jàpp na ni mi ngi doxal te sax nag li koy firndeel mooy saa su nekk lépp luy soxli parti politique ñoo ngi ca waaye nag dellu si na si inscription yi amoon si Touba te nag ku njëg yi moomale ko seen bopp jàpp na ni du noonu de ndaxte ñoom am nañu présence mag ci terrain bi en général la mouvance présidentielle te nag ñu doon liggéey ci suuf te boole boolewuñ dara ak coow te buñ sàggee ñëpp dinañ xam ci ay kàddoom. foofu it ñuy félicité bu baax engagement wu jeunesse bi mais engagement wu femme yi ndax ku nekk gis na ni ñu jëlee woon asso commission yi pour mën a bindu. loolu nag du ñu mën a def lu dul félicité engagement jeunes yi nga xam ni. dañu nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak femmes ndax liñ ci def ak sensibilisation bi nga xam ne def nañ ko ci apporté na ay fruits ndax ku ne xam na ni boo demee ci commission yi ña fa doon bindu ñëpp gis nañ ni majorité bi dañu ànd ak le camp du pouvoir muy la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñaawlu na loolu violence yi am si inscription bu nu mel ay nit demoon attaque yi siège sous préfecture bu Ndam jàpp na ni Touba mérité wul loolu. Serigne Mountakha mi nga xam ni moom moo fi xalif général des Mourides tey yoon wi mu jël mooy jàngalaat ñëpp ak taalube ak taalube nag mënta weesu jëfe ndigal tey bàyyi tere loolu nag su amee du ñu mën a nangu mukk ni goney dëkk bi laal nañ ci dëkk bi am na ab rax il faut ñu nangu ko ndax gonek tuuba xamut lu dul liggéey dem daayira bu wàccee toog ci wetu ay kilifaam mais tey jii mel na ni dëkk bi am na intrus kon na ku nekk jël ay responsabilité am quartier ba nga dëkk saa boo fa gisee koo xam ni xàmmiwuloo ko xamuloo ko ci dëkk bi mais nga tey ci moom wala nga dem ci autorité bi wax ni kat gis naa fi loo xam ni bokkul ak li ñu yaakaar ci ni waa dëkk bi lañ. LDR Yeesal moom jàpp na ni fi mu toll nii lépp lu njiitu réew mi wax ma nga ca te nag fidélité bi constance bi moom am na loolu li ko waral jàpp na ni du kenn ku dul seen bii. secrétaire général national, le président Modou Diagne Fada, que nu félicitons ci engagement ci détermination ci courage am pour mën a ànd ak le président ci grande mouvance bi je pense que le président Modou Diagne Fada bi muy jël Sonacos di ñëw di ànd ak frère am Sall ku ne xam na ni booba Sonacos dañ koy woowe Sonacos rek mais fekku fa dara engagement pour le Sénégal gëm-gëmam moo ko may tey fii Sonacos nekk bañ di ko tuddaat sax ñi di ko tudd. profitoon na également ñëw si sortie bi Idrissa Seck def doonoon allié sax nag bu benn bokk yaakaar jàpp na ne mi ngi si ay droit am waaye itam jàpp na ne ñoom na dañuy toog liggéeyal président Macky Sall di réitérer également kër yi sax nag jamono ji ginnaaw APR ñooy première force politique ci Sénégal. LDR Yeesal reste le plus grand au Sénégal après l'APR mi nga xam ni ñoom ñoo yor gouvernance bi loolu il faut que nit ñi xam ko LDR Yeesal après APR reste la première force politique au Sénégal mais aussi reste la première force politique bu nekk ci wa wetu Macky Sall. dellu siwaat également ñi nekkoon si mouvance bi génn buddi moom nag jàpp na ni éthique ak déontologie moo leen manqué. mais lu mën di am sax nag boo liggéeyee si nguur ba génn da nga war am le sens de la retenue. je pense que ni li xew léegi. kenn kuy def politique bëggatu ko yow da ngay nekk dans un parti de défendre le parti da ngay nekk dans une coalition de défendre la coalition mais da ngay nekk dans un gouvernement de défendre ce même gouvernement la saa boo génnee ci gouvernement bi rek tàmbalee wax lu dut ñaaw ana éthique ana déontologie ana le sens de la responsabilité mais aussi ana le sens de la retenue dama ni nit day xam lu bari wax lu tuuti mais je viens sur le cas Mimi Touré jamono bii ñu toll dafa mel ni Mimi Touré moom duggul cib néeg xoolaat boppam xool taxawaayam xool ànd bi mu àndoon ak président Macky Sall ci coalition bi xool bi muy dem élection ñu koy def tête de lan la daan communiquer mais tey bu demee ba changer veste mais ku ne am na droit parce que wax naa ni léegi en politique boo nekkee ci parti da ngay dugg dem ba ci gaar nga wàcc keneen yéeg sañ naa génn mais boo génnee mel ni yow amoo njaboot goo xam ne dañuy toog naan mais sama yaay est-ce que kii li mu daan wax ak li muy wax tey benn la est-ce que kii mooy suñu yaay mais loolu mu ñun mënuñu ko comprendre. moom ma nga jeexale ca Ousmane Sonko gis ni kat des na loolu pour mën a gagner le leader de l'opposition ginnaaw bi mu jàppee ni kat élection présidentielle bi weesu mooy baromètre bi. il se trompe parce que bu ñu fàtte ni lors des élections passées. Idrissa Seck moo ñëw deuxième position Idrissa Seck dafa génnoon après ànd ji ak président Macky Sall moom dafa ñëwoon en troisième position il était venu en troisième position te li waraloon mu ñëw en troisième position lépp mooy dafa am ay responsable yoo xam ni dañu déserté woon base politique yi. fii si neen ay militants responsables de les démocrates réformateurs yeesal ñoo teewoon ngir ànd ak moom si ndaje bi mu doon amal doon ndaje information mais également soññu war leen ñu gën a mën a jubal si li nekk si seen kanam.